maître Ibrahima Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay euh, chargé éducation recherche ak formation ci UNTJ du Union nationale des travailleurs de la justice nga nekk aussi greffier ci tribunal de grande instance bu Saint-Louis di Ndar alors euh, maître ci ab déclaration bu ngeen euh, siiwal yéen a ngi wax ni fi mu ne yéen ak waa Sytjust yéen a bokk li ngeen di xeex maanaam sóobu ngeen ci xeex bi lan la ñu war a déggee ci sóobu googu ngeen yëgle. waaw ñun ñun. ak waa SYTJUST ñoo bokk lu ñu xeex parce que ni nga koy déggee mooy que bul fàttali ñu ne waa SYTJUST benn benn famille la ñu woon. da mhm. taabiloon en deux mille dix huit ñëpp ñu àndandoo woon dem grève xeex ba am un protocole d' accord ba également président signé ñu ay décret boo xoolee tey protocole d' accord boobu noonu moom lay SYTJUST di demandé ñu daal di koy appliqué ak euh, décret yi nga xam ne nii président de la République moo ko signé woon ñu ne nañu ko daal di publier. moo tax démb ñoon ànd démb xeex ak ànd ak waa xeex ba pare tey ñu ne loolu ànd nañu ci ah kay ànd nañu ci bu ñu demee grève c'est parce que na dañoo am beneen syndicat waaye nag lañ àndoon di xeex ba tey d'accord nañu ci parce que travail laaj la justice ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk ay bëgg-bëgg ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk li ñuy laaj waaw parce que li ñuy laaj mooy tax ñu mën def seen liggéey comme ni ko sénégalais yi xaaree ndax justice nag ah justice dafa a trouver ay pro solution ci problème yi hmm. waaye bu fekkee ne fay liggéey ci seen bopp dañ nekk ci problème kon solution du mën a am ci problème sénégalais yi. waaw léegi lu tax maître yéen ngeen toog ba tey doog a wax ne yéen a ngi euh, song xeex bi nga xamante ni waa CGE tàmbali nañ ko boobaak léegi am na weer ak lu teg. waaw waaw parce que ñun ñun euh, déjà ñun mosuñoo écarté ñun alliance mosuñu ko écarté parce que comme ni ko waxee léegi da ngay dem sax ci benn euh, juridiction wala sax ci benn bureau nga gis kii bokk ji kii bokk c'est juste parce que liberté syndicale moo demee noonu liberté syndicale ku mu neex sax nga bañ a syndiqué wala kuy syndiqué tamit yaay tànn ci syndicat bi nga bëgg a bokk nga bokk fa léegi c'est juste moom ba muy dem grève boo xoolee ci anam yi mu demee grève ñun daf ñu cee boolewul benn yoon daf ci amul benn waxtaan ak ñun comme ñun tamit syndicat lañu. ñu daal di toog daal di continuer di liggéey suñu liggéey. mais ñoom amuñu pour boole leen ci parce que yéen déjà benn fa ngeen bokkoon ngeen euh, xuloog ñoom ba génn fa def seen yëfi bopp ñoom ñu continuer ci xeex bi nga xam ne ci la ñu nekkoon ba baak léegi yàgg na donc ñoom euh, amuñu pour di leen. boole wala xam nga ñoom tamit euh, en tant que syndicat ñoom mm. am nañ sañ-sañ. waaw demal seen bopp waaye ñun tamit en tant que syndicat comme boolewuñ si ñun tamit am nañ sañ-sañ daal di toog continuer suñu liggéey. ndax euh, liberté moo demee noonu. waa léegi lu tax ngeen toog ba tey ñoom ñu nekk ci grève depuis weer yéen ngeen toog ba tey jii ngeen ne da di bokk ak ñoom xeex bi. waaw bokk ñoom xeex bi nag ni nga koy déggee. Hmm. ni nga koy déggee mooy que la ñu àndoon doon ko xeex ba tey ñun bëgg nañu loolu maanaam bëgg nañ ñoom ñu am ndam ci seen xeex. Hmm. ñoom ci li ñuy xeex loolu. yéen tamit ngeen gis ci seen bopp. waaw waaw effectivement parce que ñoom ñoo àndoon xeex ko. Euh, d'accord léegi lan moo tax diggante bi ñoom bi ñu nekkee grève di xaar pour ministre bi dalal leen yéen ngeen dem waxtaan ak ministre bi euh, lan lan ngeen doon waxtaan justement. est-ce que ah, dafa jëm ci revendication yi parce que boo boo nekkee ci kër. Hmm. boo nekkee ci kër mu mi kër gu mag mu am xale bu ci juddu dafa laaj xale boobu noonu ñu daal di koy présenté borom kër gi ne ko njaboot gi léegi kat gën na yaatu ne kii ci la bokk. ah kon yéen a da ngeen demoon nuyoo ji yëgal ne ministre bi. juddu ba pare wax ko également que ne ñun ay travailleurs de la justice lañ comme waa SYTJUST. Hmm. syndicat la également et que désormais ñun il faut ñu ñuy boole ci décision yi ñuy jël. Hmm. au niveau des ministère il faut que INTS yi am ci kaddu ndax ci kër gi la bokk syndicat la comme au même le SYTJUST kon. am na kaddu ci décision yi ñu jël am na kaddu également ci lépp lu ñuy def mu concerné euh, justice parce que nag ci njaboot gi la bokk. Mm, d'accord bi ngeen demee ci ministre bi da ngeen a teg ci ji seen ay càkkuteef revendication yi. waaw ba ñu demee ci ministre bi waxtaan nañu ak moom. Mm. daan nañ ko présenté syndicat bi. Mm. xam nga syndicat nag boo ko déggee rek revendication moo ko tax a jóg. waaw waaw am na ay revendication yoo xam ne nii. tamit daa dañ ko waxtaan ak moom. ñu mel nan. même bu fekkee pour l' instant. Mhm. déposé ñu plateforme. xam nga nag euh, li ma ci mën a tënkal daal mooy que revendication yi nga xam ne nii jot nañ ci waxtaan ak moom mooy lépp loo xam ne nii intérêt travailleur de la justice la léegi nag comme nag euh, lu ñu war a waxtaanee ci biir la d' abord avant ñu koy génne. Mhm. duma ko mën a génne ci biti parce que teggin mayewu ko. d' moom lan la leen tontu. moom tamit nee na pare na pour gunge ñu comme pour gunge ci ci lépp loo xam ne ni daal dina tax famille bi am li ñuy ooyee jàmm am stabilité hmm. ñu mën a euh, faj aajo sénégalais yi nga xam ne nii dañuy am soxla ñoo ci réduction yi waaw bu ko defee ñu mën cee taxaw comme nañ ci war a taxawee hmm. est-ce que am na engagement bu mu jël jëm ci revendication yi ngeen ko tegal moom ministre de la justice. engagement yi xam nga nag euh, état dafa xaw a waar dafa xaw a doy waar parce que bëri na yu am na yu bëri yoo xam xamante ne nii du moom ci boppam moom moo koy jël hmm. parce que boo seetloo li ñuy laaj bu fekkee publication décret yi la secrétaire général du gouvernement moom moo koy def te xam nga kooku ministre la comme moom. du du du moom mooy kilifaam bu fekkee prime yi décret la décret bi président Macky Sall moo ko war a signé yaa ngi dégg bu fekkee pour formation bi la pour le reclassement loolu nag moom ci ministère am la parce que waa centre de formation judiciaire ñoo koy def te ministère bi moo moo ko ëmb bu ko defee daal moom la mu ñu moom lépp lu mu ci mën dina ci taxaw hmm. ba ñu li ñu demande yëpp ñu bëgg ko d'accord léegi nag euh, xëy na yàkkamti nañu yàkkamti nañu nag parce que boo xoolee engagement yi gars yi jëloon depuis lu si la boobu moom ci boppam sax ñëwagul boobu ki fi nekk nii ci boppam ñëwagul waaye daal ñu ngi koy xaar mu def ay jéego ci fan yu néew. Mhm. même bu fekkee lépp mënul faju tamit mu xool li nga xam ne ni mën na koo faj pour l'instant mhm. par exemple li nga xam ne ni mooy paiement des primes nga xam ne loolu wax dëgg fa yàlla jafewul ci état lu fay travail prime bu ko defee jàmm daal di dellu si ñëpp dellu dem liggéey li nga xam ne ni mën na xaar ñu xaar ñu xool naka lañ koy corriger ba ci anam ci délai bu néew maanaam solution yëpp mën a faju d'accord maître Diop nag bu ñu xoolee euh, ni yëf yi demee. maanaam juste euh, euh, nekk ci grève ngeen dem giseek ministre bi toog tuuti ngeen génn ne fi mu ne yéen ak justice ne bokk li ngeen di xeex xel li muy daj mooy da ngeen demoon wuti amu leen ngeen wëlbatiku ñëw bugg ànd ak ñii est-ce que demeewul noonu tamit. déedéet demewul noonu parce que xam nga ne suñu syndicat bi le quinze février la judd. Hmm. le quinze février ak tey ñu ngi poser un ensemble d'actes parce que il faut nga poser les actes déclaratifs yooyu yëpp def nañu ko maintenant nag comme dañuy doog a jëlee famille bi nag il faut ñu rencontrer tous les membres de la famille hmm. comme ni ñuy gisee le garde des Sceaux noonu la ñuy demee gisee waa IMS noonu la ñuy demee gisee le BATONA noonu la ñuy demee gis les huissiers de justice ak les notaires parce que ñëpp faw ñu gis leen waxtaan ak ñoom. Hmm. parce que xam nga li ñu ooyee œuvre de justice œuvre collective la xaw ma di dinaa faral di ko wax dinaa faral di wax naan euh, euh, le juge il ne rend pas la justice il rend des jugements qu'il estime proches à la justice qui est de sens supérieur parce que justice idéale la œuvre de justice œuvre collective la moo tax boo demee ci constitution. bu mu ne la justice est un pouvoir dafa ne le pouvoir est exercé par le conseil constitutionnel la cour suprême la cour de comptes les cours et tribunaux mm. maintenant nag boo xoolee toutes ces juridictions là mm. dañoo am un caractère composite maanaam na nga fay fekkee ay magistrats noonu la fay amee ay greffiers noonu la fay amee ay interprètes judiciaires noonu la fay ame ay secrétaires noonu la fay amee ay agents d'administration noonu la fi amee ay chauffeur yu yóbbu président wala procureur ñu dem liggéey ba pare également nooy ame ay actes d'huissier yu nga xam ne nii dañoo jóge ci cabinet d'huissier yi dañoo foofu avocats yi tamit euh, dañuy concourir à l'œuvre de justice hmm. moo tax justice famille bu yaatu la boo xam ne ñëpp ci bokk en plus di garde so sceaux ñooñu ñëpp il faut ñu dégg si leen waxtaan ak ñoom d'accord Mhm. ci seen euh, plateforme bi tamit euh, yéen a ngi euh, ñaawlu li ñu yokk liste ñi nga xam ne ñooy jariñu ci fonds commun greffe yi ndax mun nga ñu expliquer un peu loolu. waaw loolu boo ko déggee mooy que li ñu oyee fonds commun de greffe mooy dafa nekk fonds commun boo xam ne daanaka tur la rek daanaka jëriñul dara moo tax sax ñu xaatu ne dañ ko war a yokk ba taxoon en 2018 président publié daal di signé ay décret. ngir yokku ko boo seetloo décret yi décret yi noonu depuis deux mille dix huit non seulement kenn publié ko waaye keroog le garde soo sceaux bi mu recevoir éducateurs spécialisés yi nee na euh, da leen bëgg a boole ci liste bi mais ni nga xam ne nii doyul ñoom duñ ci participer parce que amul benn acte ñoom bu ñuy jël ñoom éducateurs spécialisés buy alimenter le fonds commun des greffes da fonds commun des greffes la wax. Hmm. te ñoom bokkuñ ci greffe. lañ ci waroon yokk depuis deux mille dix huit texte yi kenn publié ko tey encore ñoom ñu gis ci seen communiqué ñu ne dañ ci boole ñeneen ñu gis ne euh, actuellement climat social bi laajul loolu parce que loolu dangaa ñëw fekk problème nga ci yokkaat yeneen problème hmm. au nga apporter ay solution moo tax loolu ñu koy ñaawlu. d' accord leneen lu ngeen ñaawlu aussi mooy li ñuy jëli yenn saay ay euh, greffier ad hoc euh, ngir euh, xëy na fatt jafe-jafe bi nga xam ne grève liggéeykat yi yoon yi dañ koy faral di provoqué muy buñ fa nekkulee kon duñu am xëy na ku def benn liggéey bi loolu itam ñaawlu ngeen ka waaw xam nga grève yi moom man damaa jàpp ne population bi la ñuy nax rek population bi la ñuy jéem a nax pour wan leen ne juridiction yaa ngi dox fekk doxul. naa la wax lenn même magistrat bi nga xam ne nii moom mooy àtte mënta remplacer greffier greffier dafa jàng def concours jàll am formation greffier boo xoolee texte yi am liggéey boo xam ne texte yi nee nañu greffier bi moo ko mën a def te li ñuy fàtte surtout mooy que ne liggéey greffier mu ngi ëpp ëppee solo gannaaw bi audience bi jeexee bi audience bi jeexee la ëpp solo ndax euh, dafa am lu ñu ooyee certification ak authentification hmm. boo demee ci tribunaux yi ka fa gën a nekk kilifa wala ña fa gën a nekk kilifa moo xam procureur de la République la moo xam euh, le président tribunal amul kenn ci ñoom ko xam ne mën na ko président mënta authentifier mënta certifier authentification ak certification vérifier kese moo ko mën te dañuy fàttali ne également quatre vingt dix pour cent des décisions greffier moo koy bind quatre vingt dix pour cent des décisions parce que le volume de dafa bëri tellement que greffier bi dafay jàppale magistrat yi lu bëree bëree bëri ci seen liggéey loo xam ne magistrat ci boppam moo ko doon def sax greffier bi moo koy def à la place di di magistrat bu fekkoon bettoo ma fi ma nekk fii au tribunal de Saint-Louis mhm. mun naa laa jox des données chiffrées wax la année bii en matière correctionnelle voilà tant de décisions rendues wax la li nga xam ne nii greffier moo ko bind intégralement ak li nga xam ne nii magistrat bi ko atte loolu la bind pour vous dire que plus de quatre-vingt-dix greffier seen bopp ñoo koy bind gannaaw bañ ko bindee recours boo daa ko def appel wala opposition greffier bi moo koy jël jugement bi buñ ko dee délivré pour nga exécuter ko greffier bi moo la koy jox loolu yëpp greffier bi moo koy def amul keneen ku ko mën a def à la place du greffier. d'accord léegi boo xoolee greffier euh, jugement boo xam ne ni nag greffier ad moom moo ko jël mhm. kenn du ko bind te jugement bu ñu bindul fa mel ni xale bu judd rek te indaalewul bakkan d'accord leer na alors maître hmm. ngir jeexal euh, ginnaaw bi ngeen waxee ne léegi yéen ak waa CIDJUST yéen a bokk xeex euh, ndax Euh, jokkoo ngeen ci ak ñoom benn bu dee waaw wala déet itam lan la ñu mun a xaar ci fan yi ñu dëkkmal ndax dangeen di euh, ànd ak ñoom def grève wala dafa am beneen act boo xam ni nar ngeen ko posé ngir jëmmal engagement bi ngeen euh, wax ci seen bi bëri na ñu ma dégg ci ñoom ba bëri na ci ñu ma dégg ci waa SYTJUST ba xam ne nii waaye nag ba tey ñaari bureau yi tooguñu waxtaan ñaari bureau yi ba tey tooguñu waxtaan waaye nag am na ñu bëri ci waa SYTJUST yoo xam ne déggante nañ ak ñoom téléphone waaye nag même euh, Aya dégg leen ak ah, moom. ah Aya ah, Aya man de personnellement man dégguma ko. Hmm. am na keneen am na suñu chargé des des relations extérieures moom déggante na ak moom. Hmm. waaye ba tey ñaari vidéo ba tey tooguñu ci benn table waxtaan. d'accord léegi lan la ñu a xaar nag li ñu nar a def nag engagement bi waa. waaw li nar a def nag maanaam bu fekkee lii nar na wéy du lu ñuy feeñal parce que stratégie de lutte dañ koy nëbb hmm. dañ koy nëbb parce que combat tamit dafa laaj stratégie hmm. stratégie nag daanaka boo ko wonee dañ la fay xaar ba ba doo ko réussir hmm. waaye li wóor ba wóor mooy que lii bu naree continuer ah ñun bu boobaa ñun nañ ci dugal suñu loxo te bu boobaa situation bi dina gën a tar ndax nag tar na Mm-hmm. jërëjëf maître euh, a Diop ñu ngi lay gërëm fàttali ni yow euh, yaa ngi nekk euh, greffier ci tribunal de grande instance bu Saint-Louis di Ndar waaye itam yaa yore wàllu éducation recherche ak formation ci union nationale des travailleurs de la justice di UNTJ amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi FM jërëjëf. waa kay maa ngi jaajëfal soxna Fatou